مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب بالعلم والإيمان مركزنا ينادي وصحبة القرآن مركزنا ينادي نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي والفوز بالجنان مركزنا ينادي بالعلم والإيمان وصحبة القرآن نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان مركزنا ينادي بسم الله الرحمن الرحيم هلموا نقادر السحاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل uqdatan min lisaani yafqahu qawli qadra as-sahab bil himmati ash-shamaa markazuna yunaadi bokk ni déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh markazuna yunaadi wa nafa lil alya markazuna yunaadi bihim su defeem seen rajo seen jërëm bi tudde albidaaya ngeen koy am guddi aj ma jot ci waxtu wi wa nasadil alia dulu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall markazuna yunadi talaa shabab halummu ginnaaw bañ sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci annabil Mustafa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër jéggul soxna yeeg sëriñ si xaj Mbàkke ngi nii xaj Mbàkke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi bàyyi la nga nuyoon te ngay déglu jërëjëf oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo di nuyu di nuyu mboolem ñiy bàyyi xel Sud FM seen rajo rawatina seen jotaay bii di Al di ñaan suñu borom mu def suñu nuyoo bi mu fekk leen ci ci jàmm allahuma amin xaaj bàkk ñu dellu si na la nu jataay bi tëddee jërëjëf niñ ko baaxoo tërale rek lañ koy jéem a tëraleeti insha allahu taala ne suuti daañu tàmbali xibaari daara ji maanaam xew-xew yi nga xam ne moo gën a ràññiku ci ay bis gi ñu nekk ak gi ñu génn euh, wéyal ko boole koog laaj yi nga xam ne moom la ñu mbokk yi bind ci email bi di albidayatu arobas yahoo point fr bu ñëwee ba minuit jot ñu ànd ak waa rédaction bi ci xibaar yi ci français ak ci olof dellu 828 98 98 33 841 22 ñu jeexal ko ci xaaj bu njëkk bi dégtalaat leen tafsiru bi ñu amoon ay bis euh, waxtaanu day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boromam subhaanahu subhaanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëddee tubaarakalaa mel na ni am nañ fi ay gan xam naa nga présenté leen waaw mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu macha allah jërëjëf oustaz ni nga ko waxee noonu la sëñ Saliou Sow euh, wéttalu albidaay ñëw na euh, uh-huh. di indi fi ndaw ku ndaa yi bàyyi faale oustaz Alioune Sall yi ñëw nañ Ibrahima ak ak Omar Omar Ibrahima ak Omar ñoom itam ñëw nañ di bàyyi faal yi fekke si tey ni ñuy defee albidaaya incha allah. kon nag bu leen taxal seen ma sha allah. fa inna man umru thaman wa man yu'idu al-majda man illa fatan fityan. daal leen nag jàmm soyez bienvenue ci albidaaya. daal di tàmbali nuyu bi fële ca Mboro Ndeye Fatou Dramé tabarkala Roqaytu Thiam ma nga fële ci géej waay marché Sodi salaamun. Ami Ndiaye nekk fële ca Kër Daawud boo génnee Thiès Abdoul Aziz Fall nekk ca Bambey Abdou Korea ci Thiès salaamu Ibrahima Diba ci Géejawaay la nekk Malay Kan nekk ci Yëmbal yaayu Umu Regina salaamu ndey faatu jëng ci Thiès Moustapha Ndiaye numéro maam Kumba Fay Wakaam Mbay Géy Tubatul salaamu Aminata Diouf ICS la nekk salaamun Aminata Serigne Mor ka ma nga fële ca Kër Masaar Galaay Sekk ci Thiaroye sur Mer salaamun waaw waaw maam Cheikh Mbay ma nga ca Touba Daouda Fall mi ngi ci Thiès Góora Jóob ci Jaxaay la nekk sëñ Bamba Ndiaye Ndóomar la nekk wa xusnuha xusnuk Fatou ci Rufisque Serigne Fallou Diop nekk fa ci unité 26 salaamun li kulli ardin lillahi fiha saajid waaw salaamun salaamun li kulli ardin salaamun Modou Mbacke Mbeng ca ci Kaarang salaamun Adama Seck mu Zeynab Fall salaamun Makhtar Sall ci Géeja waaye salaamun nuhdi Daawuda Gueye euh, fi sabili sarikatu fi sabila lil hajji alimatu yadd ca Tiwaawan salaamun oh, salaamun alfa Diallo Ali Imran Maam Mbay ma nga ca Ndar Jibril Bojaam sarikatu fi sabilillahil hajj moom tam salaamun Fatima Seck an Mariste salaamun Mbay Gajaga ci Noto salaamun Jatu Ba ci Wakaam salaamun alfa Diallo mi nag unité 11 la nekk Abu Jandal ma nga ca Mbuur Moustapha Mbay 313 sëriñ xumma taximaan salaamun Basiiru Jomaas si Grand Yoff Maxtaar Siise Tiwaawan Cheikh Dieng Ali Imran euh, TV salaamun Aliou Ndiaye directeur SOSAT salaamun Pape Camara euh, ci euh, assemblée la salaamun Raqayatu Gaye Wakaam Mor Seck ci jogo yéen ñëpp salaamun yaayu Albachir ci Espagne ma dem bitim Bekay Sène ca Italie Fallou Diop ci New York tëggee Allemagne salaamun soxna Xaji Gueye ci France la nekk Ibrahima Sow nekk fële ca Maroc Jamil Gueye ca France la nekk Ndongo Ndiir Milano salaamun Alaaji Gueye Trento Fatou Gueye Morolan ci Espagne Fatou Gueye Morolan ci Espagne salaamu Serigne Diouf ci Bamako la nekk Baye Ash ma nga fële ca Makkatal Mukarrama Ash Malick Sey ci Allemagne la nekk salaamu tafaaloo ci Espagne Moodu Mbeng mu nga fa ci New York Xaadim jóob ci Espagne la nekk Njàmbi Guèye Italie salaamun Babacar Sané ma ngi ca London Ousmane Diop mi ngi ci Italie ma Magu Ndiaye madame Sarr ca Maroc salaamun Cheikh Dem Pastef euh, ca Côte d'Ivoire nee na borom Pastef la mu ngi ci Côte d'Ivoire Omarul Farouk Faye Makkatal Mukarama Khalil Sarr ci Espagne Diop Mamadou Italie wax sa xalaat Adja Marème Gueye ci France Doro Silla ci France Ibrahima Niang ci Vigo Malick Diakhaté ci France salaamun Sini Mbu Brescia Italie salaamun Bachirou Bachir rek la bind ma nga ci Italie salaamun Adama Ngom Maktal Mukarama yow tam salaamun Adama ba moom tam ma nga ca Maktal Mukarama ca xawaali quartier bi nga xam ne ci la su si dëkk moom tam salaamun maam Njaate Ndooy Maktal Mukarama Abdou Samad Njaay Argentine Sayer Gueye Brésil salaamun Ibrahima Sow ci Maroc moom tam salaamun Xaadim Diop ci bari salaamun Ndey Suwet ca Suwet Ndey Suwet salaamun <laughs> Moustapha Cissé Argentine la nekk ndong ndiir nekk ci Milano ñooñu ñooy ñi nga xam ne tabarakallahu ñoom lañu jot ci suñu WhatsApp jot leen ci biir réew mi ak ci bitim réew yéen ñëpp salaamun nasimu shami salaamun waa biir réew mi salaamun waa bitim réew mi salaamun les départements salaamun les les arrondissements su fekk nu la salaamun les régions 22 heures jot na ba teg 48 minutes xaaj Mbàkke salaamun salaamun waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tafaddal mashkuran fa jazaakallahu xayra jërëjëf Oustaz jërëjëf ci salaamun yu am solo yooyu nga xamante ne moom nga ubbee jotaay bi te muy nuyoo yi. ñoo ngi la ciy ndokkeel bu baax a baax di bëkki mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy bàyyi xel. ñi ngi ñuy bàyyi xel xanaa rek sëñ Mbacke ñu jox la rek euh, nouvelle bi nga xam ne mooy kii. <laughs> bismillah. يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ككرز لا يضيء ولو لم تمسس النار نور على نور يهدي الله لنور مثل نورك مشكاة كامل باب kooku def naa xàmme nga baat bi. wallaay ndeysaan oustaz rahmatulah aleyhi. imaam Sarr imaam eh, Lamine Sarr imaam Lamine Sarr bu. bu asalem macha allah rahmatulah aleyhi. Hmm, yal na ko yàlla yërëm. amiin. waaw jàmbaar la woon Oustaz. mënu fee weesu. waaw waa Asalem ñàkk nañ kilifa diine gu mag. allahu akbar. waaw koo ah. xamante ne ni nga ko daan waxee nii ñaanam yi euh, bu ko daan def jumaa ji day fees dellu waaye kenn du jóg. kenn du jóg. Euh, man maa ngi ko mujjee gis ci tiiraasu waa duwaan fii sabilillah bu ren bi. Mhm. bi nga ñëwut woon te ñu dem teewal la fa. Mhm. keroog moo fa bokkoon nekk moom ak euh, docteur Abdoulaye Lam. waaw waaw. Mm, ñëw ubbi jotaay bi ñaan ba ñu jeexalaat mu ñaan toftal ci kàddu yi rafet. wallaay ndeysaan bisimilah. ku ma saan fekk màkkatam ci loolu nga koy fekk. Mhm. min na mbedd ya min na aj ga min na ajin ya min na ña fa nekk min na ñëpp mm-hmm. ci daan ko def ba rafet lim am lépp na moo ko def ci jubaam ja ca buntu këram ga yàlla na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbal waaye ci kawam amiin amiin yaa koy jaale waa aslem yëpp wallaay ndeysaan waaye nag di ko jaale waa Sénégal yëpp mhm. di ko jaaye monde islamique bi yëpp tabaarakallahu ndeysaan tafaddal mashkuran wallaay jërëjëf ngi noonu kon ni nga ko waxee loolu mooy rek eh, dund gi ak yooyu ñoo ànd rek taabun kullu al xayaatu xam naa jamono ji moom ñi ngi ñàkk ay kilifa yu mag a mag waaw ay nit ñoo xamante ne amal nañ njëriñ société bi lool ñu ngi yëg ne ñi ngi dem loolu nag oustaz damaa xamul ba xam buy am man njàngat la ci askan war am li ci askan war a am li Sëñ Mbàkke mooy euh, ginnaaw tiit ci mm-hmm. ginnaaw tiit ci mm-hmm. jàngatu waaw lu xew mm-hmm. mbaadu feebar bi ci dëkk bi mooy yóbbu suñu kilifa yi c'est une question waaw waaw xam nga feebar bi dafa mel fa yaatu ginnaaw feebar bi dal nit wala xëy na hôpital nañ fa doon demee mu wàññeeku wala faj mi xaw a euh, nu mu tuddati maam yi ci laxasu ci jëmmi feebar bi daa bari dafa bari dafa bari mm-hmm. ndax bu dalul tit mm-hmm. ñun ñuy toog sax fi nekk ni ko dem ñun ñëpp dañoo corona wallaay ndax suñ fi du dalatul wallaay wax nga dëgg boo saqatee na ñëw na wallaay taali bu la dara méttee na ñëw na mi ngi takk bu rëy fi mu ne waaw masque li li ci nit daj <laughs> yàlla nu yàlla yërëm amiin daal loolu la am ñaagan mu rëy la di ndax fekkee ñu baax ñaa ngi dem dëgg la yàlla yi tànn ñu baax ñi rekk di yóbbu mm-hmm. eh, te itam ñu am fi njariñ lool amul nu njariñ mm-hmm. ah, njàng yi bari na lool waskul fii kitaab bi diw dëgg la waaw dëgg la yàlla yërëm leen amin yaa rabbal alamin àpp sore amin tabarkalla amin yaa rabbal alamin mm-hmm. ndeysaan muy lu am solo oustaz jërëjëf di ko jaale mbooleem imaam yi eh, ak ñi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi ne ci réew mi yëpp rawatina ñu dëkk ci asalem ak li ko wër sunu sëriñ ba nekkoon sunu xarit nekk sunu wëllëre sëñ Pape Malick si moo daan wax ne suñ Cheikh Tidiane daf ne hmm. ku am dëj bu bees hmm. dana métti lool hmm, waaye bu saxal dama ci bàmmeel yonent bi rek wallaay mu sedd guyu mu sedd guyu dëgg la wallaay ndeysaan wallaay wax nga dëgg la tëral yonent yàlla Muhammad moom ku mu tëralati mën a tóoree ci kanam ah, dëgg jax na bu doon bari njariñay tax nit des fi moom moo fiy des wala fi nana ko gi léem soo wàccee loo war ndaama lay doon wallaay ndeysaan jërëjëf loolu am na solo oustaz macha allah na ngeen def ak eh, coono yi waaw coono yi de moom nu ngi ci rek <laughs> fi kabadin di nab nabi rek léeg-léeg ñu tëdd ba defee du ñëw albidaay de waaw waaw wallaay fii kabadin rek mm-hmm. sonn lool nga xam da ngay tëdd yaram bi xaw a kii moom kay mënu fee wees ndax comme am na heure boobu saa bu jotee war ngaa jóg mm-hmm. boo jógut am na ku lay xaar mm-hmm. bu dee ca rajo ba bëgg na laa dégg dëgg la bu dee ca bu dee ca loolu mooy waral ngay limité nelaw yeeg di ko dàkk fii ak loolu nga dugg ca waaye léeg-léeg daal nga jóg yax yi fenn mm. bala nga koy yëkk ci ni ngay sonnee kenn musu koo gis rek. waaw nga dëgg de bala nga koo dajalewaat ba daan ñokkee. bala ah, waaw comme kat moom xam nga dañuy wax ne yaram moom boo ko noppalul mu noppal boppam. moo tax jaaxal na nag ma comme sa waatee juddee. wallaay ndeysaan am na solo. wallaay ndeysaan am na solo de xam naa oustaz de loolu moom metti na loolu àdduna ak i coonam. mun fa weesu ah, ndax man ci jamono ji nga xam ne corona bi daa am ba nit ñi doon def télétravail damaa gis ñoom dañ leen a noppal ne leen toog leen ci gi léegi mujj gi ñuy jàmbat ñoo xam ne toogaay yi gi daa metteek kër gi daa bari nangam bureau ba ña ngay jàmbat xanaa àdduna bindoo noonu. àdduna bindee noonu. kàllaa la maa yàq di ma amara. Hmm. àdduna. Hmm. bu suñ borom indee sedd. ñuy jàmbat ba tëdd ca naaj ba. la mu indiw tàngoor ñuy jàmbat ba tëdd ca hmm. te nag du du nekk ci diggante bi nag sedd du tàngoor. déedéet moom kay xanaa moom suñ jàmbat yi bu ñuy jàmbat man xam naa bu doon changé dara ci programme de dana sonn lool. waaw gay mais du ko ci changé. nun ñoo ci ñaawe rek. waaw xaaj Abdul Aziz am na benn bis mën a jox mu wantaay gi teekat daa tàng waaw waaye da koo jooy ba añut allahu akbar man sama yoon ci tàngoor sax man allahu akbar ba ma koy jàmbat di ko jooy ba añut ndeysaan <laughs> ah ñoo ñoo baax waay ñoo ñoo baax seet waaw ñun nag dañuy kaf oustaz naan yàlla euh, xam naa looloo dañ ci wax daal ndax leen léeg dañuy jël yàlla def ko muy ku ñuy maame daal Eh, olof sax danaan wax maam yàlla wala mu naan yàlla tey jii xale bu góor la wala eh, maanaam yàlla ji daa tàng loolu itam façon waxin yooyu waaw yooyu yëpp ëpp wax te ëpp jëf ndax suñu borom dafa am benn bis alayhi salaatu salaam jiitlee ki gaa yi mm-hmm. gaa yi jiw ko mm-hmm. suñ mbàkke mm-hmm. jiw ko daal ne ah, moom di benn nopp la rek la la daal boo xam ne mm. loo ko wax ma gëm ko waaw ah, ñun dañ koy wax kilifa yi ñaare ndekkite yoo sëñ Mbàkke loolu kenn du ko wax sab alxuraan ni cëpp nañu ne ne unité bi am na ñu lay jëw di naan usunun waaw benn nopp nga waaw ah mu laaj lan waaw yéen wax nangam ñu ne ko ah, ñu ne ak ah, ñun dañ doon kaf rek ah abillahi wa ayatihi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tasasuun lu mu ca teg xad <laughs> kafartum laa tax tasiru xat kafartum jeex na seet seet mën leen ci yàlla ak yonent bi daal bu ngeen di fo ci ngeen di fo di ngeen di fa daal di fa yàlla ak yonent bi <laughs> ak i aayam ah. yéen bokkutu leen ci xad kafartum ba'da imaanikum léegi su ngeen bëggee da ngeen di yeesluwaat dëgg la donc loolu lu am am solo la. waaw kenn du fooyee yàlla kenn du fooyee yàlla kenn du fooyee yonent bi. macha allah waaw macha allah tabarkalla am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu xam naa ma dooree waxtaan wi ci at mu yees mi mhm. atum mille quatre cent quarante et un jeexal nañ ko jàmm ma ngay dem mhm. ñu war a dugg ci atum mille quatre cent quarante de mhm. ci gàddaay gi yàlla nañ ko eh, jeexal amin yaa at mu yees la ñu daloo noo koy jàngate waaw jëf tàmbali calendrier boo xam ne bii sumatul matul trois cent soixante cinq jours da koy manqué tuuti ndax ci ci weer bi doxee mu lañ koy waññee dëgg la jàngat mi bari na lool nag ndax xool toogaay xool li nga fi def li nga fi defal yàlla lam ca moom la ca sa bakkan moom allahu akbar waaw mm-hmm. ndax léeg-léeg ñu defal yàlla ba at mu jeex mm-hmm. lam ca am dëgg la mutul mutul mutul neuf pour cent wallaahi ca yàlla suñu bakkan lam ca am mat na soixante quinze pour cent mm-hmm. seet bakkan waaw lan mooy suñu bakkan lim ci am mat soixante suñu bakkan mooy li ngay def ndax bëgg ku la ca ku la ca tagg mm. loolay suñu bakkan maanaam nit bëgg ku la ca tagg nit kuy wane boppam daal. nit kuy wane boppam. Ah. <laughs> nga xam ngay def moom nit ñi tax pour ñu wan la. waaw waaye kii moo fi sut booy jàmbaar. Mhm. waaw mhm. ndekete yoo sa bakkan ngay defal. allahu akbar. cay xaasibu anfusakum. Mhm. qabla an tuxaasabu qabla an nit ku ne daa war di seet. at mi lan laa ci def. lu ma ci defal yàlla. lu ma ci defal sama bakkan. lu tax lan laa ci defal nit ñi. am loo xam ne du ma ko def ndax ndaxte nit ñi hmm. am loo xam ne danaa ko def ndax te nit ñi hmm. loolu tam dañ koy natt hmm. dañ koy natt at mi su duggee nii da ngay natt yooyu yëpp ndax fi ne kat léeg-léeg atum tubaab mi dugg gaa ñi dem seen compte xool dugal seen oto garage am déet defaraat kër gi wallaay ornewaat nangam def sa bilan ci at mii la at mii moo ko gën a yey at mii moo gën a yey ci at yooyu. allahu akbar mais oustaz li ci metti mooy yëguñu ne at mi jeex na. maanaam ñi ngi xaar xëy na bu doon 31 décembre la heure bii ñu war a jël premier janvier euh, adduna bépp lay yëg ne am at a ngi jeex waaw taal lumière yi ci mbedd mi taal pétard mu ñu dugg ca te loolu ñun ñi nga xam ne ñoo moom bi ñooy dundal bee waaw <laughs> lu xew li xew mooy dannoo dannoo bàyyiloo bee mm-hmm. joxu ni bii ñu jël ko mm. xamuñu bi fi ne loo ci def ñu la bidaa la. Ah. nooy def léegi. mu mm, mm, koy toog rek ne soog rek. wallaay bu lee ñëwee nag. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu far fëx. ah lee nag kon xanaa moom day weesu bidaa ak kufru lay doon def naa ko. <laughs> wala mu ngoog de. fa la gën a garaawee de. mu ngoog de. <laughs> waaw ñun de dégg naa war naa fekk ñun ñëpp ñu jox suñu doom yi. ay cadeau waaw ba ñoom yëg ne ak mi na. la. ma tax bu ñu demee Ashura ci bisub tam xarit ba mhm. la ñuy yëngale kës néew te mhm. foofu lañ ko yëngale mhm. te loolu sa bari na ci lu te loolu fekk na juróom-ñeenti fan weesu na ci atum at mi wallaay ndeysaan waaw wallaay te loo ci yëkkati ñaari gaa yi tegal ci suuf affaire ah, yombut de jo eh, yombut xam naa daal ci wàllu diine soxla na politique bu dëgër waaw kay ngir message bi gën a jàll ngir ñu gën a yëg yi nga xamante ne ay sha'air la yoo xam ne ñoo ko am loolu la yonent bi dàqoon ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam loolu moom la dàqoon ku dul moom. dëgg la loolu lañ tuddee récupération tey. tey. nga gis koo xam ne kii bi muy dem daa dem rek. waaw soo demee sóoratu ko fi. kere ba xale yi gën dëkk bay dem. wallaay ku leen yëpp. kenn kenn kenn dañoo nëbbutu. dañoo nëbbutu <laughs> waaye kere ba ñu yëgee ne fii la xale yi nekk. njàmbaar ga def ci ñoom tax na nga dégg ñu ne. la mhm. qaala lazina galabu ala amrihim. lanattaxisanna lanattaxisanna alayhim masjida. galabu ala amrihim. <laughs> récupération ñëw na waaw maanaam xale ya ba ñuy samp yëf fii daa metti dañ caa wéetoon waaw waaye bañ demee ba nekk ay eh, ay euro ñoo xam ne dañ leen teg ci kaw waaw <laughs> ñu ne léegi rek <laughs> ci ñun lañ bokk moo tax kër bi alayhi salaatu salaam ñëwee ma Madina mm-hmm. fekk ñuy feete Ashura mm-hmm. def na lu xew mm. wala boog Tasua mm-hmm. ko Ashura li ci xew mooy sunu bu yónantu moo ci amoon victoire ndeysaan ñoom yahood ya fa nekk ñoo wax loolu waaw waaw muy leen nahnu ahaqu bi bi Moussa ëpp ëppale wu ñu ci Moussa. dëgg la moom it récupéré ko. ah, ah, ah. Oh, récupéré ko dégg naa ñun dañoo war di récupéré ba safatul xorom ci ñoom. waaw. sëñ Bakk. Hmm. da ko récupéré ba safatul xorom ci ñoom. dëgg la dëgg la. mujj nañu naan ko ah <laughs> dag ñuy toppandoo kat. Hmm. yow kay moom. Hmm. boo amoon na nga def si fi bopp. wallaay mooy leen la in baqitu ila ila ila. Eh, ila yimbaxal wala nangam <laughs> ila ila xaabilin euh, mhm. la asoman na taasi mhm. su ma fekkee déwén mhm. changé ni ma leen di toppatoo ngeen xam du ma seen morom dama ciy boole neuvième bi waaw woor neuf woor dix ngir ma xaw a wuute yéen allahu akbar mais sax li nga wax nii xam nga ci wàllu récupération dafa dafa am solo lool lool xam nga tey ci série yi nga xam ne ñooy daw nii ci tele yeeg yooyu mhm. am na ci série boo xamante ne ñu baree bari ñu ngi ciy wax xëy na mhm. li ñu ciy wax lépp bari na lu ci am mhm. waaye bu vidéo bi ne càpp ci biir internet bi ci youtube bi balaa mat trois heures de temps lu mat million ngi nit xool ko waaw léegi lu mel noonu euh, tey su fekkoon ne récupération day am warees na koo jël mooñ ko mooñeen woo xam ne message buy amal njëriñ nit ñi mën na ciy jàll te duñ ko jël rek diaboliser ko ci waxin waaw waaw parce que li jël sax di ko diaboliser yaa ngi ko waaw waaw parce que bës yu bari bu ñu ko amee euh, léeg-léeg ñoo leen koy wutal. ñaata bandi nga dégg ca la xoolal yàlla tudd seen tur. déedéet yàlla moom lu tax waaw moom lu tax du tudd bandi yi. <laughs> bi boo fiir ci temps parce que am njàngaleem suñ mbàkke waaw mhm. moo gën ci bandi tudd bandi mhm. allahu akbar da koy may bës waaw da koy may da nga koy may bës <laughs> tey soo seetloo mhm. sunu sunu sunu rajo yii. Mm-hmm. day am rajo boo xam ne bii ku falu. waaw yaay moom caméra ya. waaw yaay moom micro ya. moom directeur ba. moom <laughs> moom directeur ba moom ñëpp. yaa koy fal di <laughs> yaay moom ñëpp. dégg nga. <laughs> wallaay léegi nag ñooñu. pour pour pour ñeneen ñi. Mm. dañ leen di ignorer. doo def meeting ba ñëw. Mm-hmm. doo woote conférence de presse ba ñëw. chaîne mhm. yi ñu ko ci yow. Mhm. loolu mooy moo mooy tudd ko ne lay union ñàkk gi tudd googu. suñu borom da koy jëfandikoo ci alxuraan. Mhm. donc lu baaxut. alayhi salaam daa fu nekk naan. Eh, li baaxut ah. Eh, bàyyi la nangam. déedéet da koy récupérer sang ko ba mu set dugal ko ci lim soxla. macha allah lu am solo nga wax. am na beneen sëñ Mbàkke. waaw bi mu ñëwee Madina. dafaa fekk ay fajkat. ñu naan maay mën a faj njàmbataan mhm. ku xëreet ñëwal ku sa biir di daw ñëwal maaman yi ku war leen ñëwal waaw ku sa kawar di ruus ñëwal rekk tabarkàlla ku tëllee ca ba ñëwal mhm. lu dëgg mhm. bi yonent bi ñëwee waxu ne bàyyi leen def de bàyyi bu leen ko fi defee te bu leen publicité déedéet daf leen a woo ñëw Mbàkke yéen ñi yéenay faj waaw xëy na ñokket mu ne ko nooy faje mu ne ko damay gajj ak garab weer xob ya ndeysaan boxom ku bam wow ma dëbb ko mu ne ko looy do li nga ko dëbb oh. mu ne ma def ko sunguf muy naan ndax muy faj biir buy métti mm-hmm. mu ne ko yow bi ngay def baax na waaw yow loolu wax bi ngay def baax na mm. daal ni ma rux ji yow nag mu ne man tam dama wut ay xob mm. dama koy dëbb bam nooy mm. ma jël ko jox ko leen ko ñu koy sangoo ndax ñu am bay rek mu ne bawut bawut waaw <laughs> ndax bëgg a bay rek loolu nag daa xew léegi sax dañ naan la taal ma <laughs> naan sangool bii ndax nga tàkk ak samp maag lu ne ngay dégg gis nga sew sew yooyu mu liggéey ci liggéey bëri sallallahu alayhi wa sallam waaw mhm. keroog bi ñëwee ne ko dafa am jigéen ju nekk fi daal moom dafa topp ci xale jigéen ji leen xarfal mhm. waaw da ko war a bàyyi parce que mi leen di gaañ daf leen di xañ li nangam ki nangam dégluwu leen de mu ne wool leen ma ko sallallahu alayhi wa sallam ñëpp naan ko ah tey nga xam ne yàgg mooma tey ndeysaan ndaw sa agsi mu ne ko yaay xarfal jigéen ñi mu ne ko waaw mu ne ko noo koy defe mm-hmm. mu ne ko nii ak nii ak nii. mu ne ko dee ko defee nii te bu ko defee ti nii. ndax yëg nga ne am na njariñ mu ne ko njariñ mu ne ko waaw. daal di ko ca yokkal ñaari njariñ ca njariñam am. waaw ndeysaan sallallahu donc moom loolu doon liggéey. Mm-hmm. moo tax bu ñëw ci tam xarit soo seetloo ci la ñu daan jàng gàddaayam gi. Mm-hmm. gàddaayam gi ndax ci la ñuy date mm-hmm. yaa ngi wax léegi mille quatre cent quarante mille quatre cent quarante deux mille quatre cent quarante ba yonent bi jógee màkk ba Madina ak tey ji waaw mi ngi toll ci junni at waaw ak ñeenti téeméeri at mm-hmm. ak ñun fukki at mm-hmm. ak ñaareelu at ñaareelu at yàggut yàggut lool ah. <laughs> macha allah sallallahu alayhi moo tax moom rek la la yàlla def ci yonent yi. Mm-hmm. nga man wax date de naissance am. Mm-hmm. lim ay maamam. Mm-hmm. lim ay soxnaam. am déet wallaay lim ay doomam. dëgg la lim ñu àndoon ak moom. wallaay ba dem ñu la fii la tëdd. sallallahu alayhi wa sallam. nga xam. sallallahu alayhi macha allah. waaw dëgg la oustaz xam naa fi nga toll noonu ci wàllu récupération waaw euh, xuma baat boobu la ñuy jël wala bu ñu jël mhm. waaye léeg-léeg am yu ñuy seexlu yoo xamante ne bu dee lu baax diine jee ko moom waaw te bu dee luñ jàpp ne baaxut it la ko tee baax buñ ko dindee mu baax ba waaw léegi nag toog naan baaxut baaxut rek dem dindi loola gënut <laughs> ba ci plateau yi am ci télé yi léeg-léeg nga gis plateau euh, maanaam yoor ne boo euh, léegi plateau yi bu fekkonte rek da nga naan jigéen ña fa toog ñoom daal boppum neen lañ def wala ñoom mbayeng ci am ña fa toog euh, dañoo makki yow diwlu xonq seen tuñ du ma ca dem day mujj yàgg oustaz kon day mel ne yooyu yëpp day nekk benn pëccëxoo boo xam ne l'islam du ci am dara loolu dañ ko war a la ci wooxee Mbàkke dool seexlu ah, doo wax ma toog ak jigéen ndax am na ñu koy déglu ñooñ mm-hmm. boo ci ñëwee yow la nga ca comp def ca mm-hmm. mu njariñ leen dëgg la naa jëm mës naa cee dem ci plateau boo xam ne mm-hmm. dañ lay gisaaneel waaw la ilaha illa waaw dañ lay gisaaneel xaw ma nag sama dem baa tax mu bay gisaane ga xaw mu waay bay na ko baax na ndax moom ki doon gisaane dafa gëm ne. Mhm. gisaane dara nekku ci. waaw ma ne ko ndax lan mu ne ma moo wane yonent bi. Hmm. ndeysaan. mu ne ma gisaane moo wane yonent bi. waaw kooku de des di àgg ca moom wax ak moom. waaw ñu ngi ci émission bi direct. Mhm. ma ne ko waaw. booba dañ ko yónnee gut mhm. waaye biñ ko yónnee. la courant bi coupé ba loolu amatut. Hmm. booba gisaane manoon naa nekk. booba gisaane mënoon naa nekk waaye bi mu ñëwee léegi daa nekkatut. daa nekkatut. c'est ah loolu de xóot na. waaw loolu de xóot na. ba émission ba jeexee ba ñu posante question ba posante. Hmm. en tout cas séentuma gisaane ga ca question ca ca ca émission ba. Hmm. yàlla xam na ko. baax na waaye baax na. waaw baax na de. baax na baax na lool <laughs> macha allah. léeg-léeg sax ñu wala ci ngay bëgg a dem ñu ñu ñuy ñu defarawaat. waaw ah déet am na koo xam ne ku ko woo sa kër bu ñëwee danga defaru. waaw moom ak noo mën a mel da nga soppi toog yaay danañ xaw a hmm. soppi yenn wax yi léeg-léeg sax boo demee ci bala ñoo tàmbali nga dégg kuy tooñ wooyee nit benn tur mun la yow bul ma wooyee loolu xanaa gisoo oustaz nangam nangam nga <laughs> ne euh, affaire yi baax na donc loolu nga wax noonu <laughs> ci récupération <laughs> uh-huh. ci pénc mi maanaam li li fi nekk uh-huh. euh, al aslu fil umuuri al ibaaha uh-huh. al aslu fil umuuri al ibaaha maanaam mbir yi cosaan yi dafa dagan cosaan yi mooy yépp a dagan la ci ñu bëgg caa xajam nag boo ko ca soppee mu delluwaat ci cosaan la daganaat. dëgg la dëgg <laughs> la mu jàpp li koy araamal dañ ko ciy tàbbal rek. waaw ah, macha allah. lu am solo la. macha allah kon nag weer wi teer teru na. njàng yi bari na. Mm-hmm. bind yu baree bari na ci biir tabarakallahu mm-hmm. wa shukran ci sa laaj ba am solo. na solo jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu di weeru tam xarit noonu la ko olof di waxee bu ñemee ba ca juróom-ñeent yaag fukkeel ya euh, ca lañ ko daan euh, dundal lu baree bari. Mm-hmm. xam naa dundalin wi ci wàllu cere yeeg. yooyu mën naa bañ a soppeeku lool. Mm-hmm. waaye ci programme diine yi ci daan am moom mën naa soppeeku. Mm-hmm. te ku tudd lool sa xel day dem ci Asura waaye sa xel day dem ci yow. Mm-hmm. Euh, bis bi nga xamante ne moom nga ci daan woote ci Castor. Euh, ren nu ngeen ko fas yéene defee. Euh, jërëjëf ci laaj bi am solo bi. ni ñu ko fas yéene defee incha Mbàkke mooy dem ci télé yi. Mm. am fa temps d'antenne nu may nu ko ndax télé ñoom suñuy suñuy gaay lañu. may nu ca heure ak genn wàll bu yaatu. ñu toog fa nañ daan toogee ñu ak suñu mbokk Oustaz Ahmed Dame yeneen tele yi jëlal ñu relais bi mm. ñu tasaare ko ci àdduna si yëpp macha allah ñu toog def ko euh, ndeysaan ci kàttanu suñu borom macha noo ngi ciy waxtaan noo mm-hmm. ngi def dernier réglage yi mm-hmm. euh, bureau baa ngi ci liggéey te mm-hmm. jàpp na ne incha allah euh, samedi bi mujj ci Euh, kii bi. maanaam bu njëkk ci bi euh, euh, maanaam samedi bi di ñëw daal bu delsee waaw bu delsee samedi ginnaaw si bi bu delsee. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. bëgg nañ ko defee daal nañu ñëpp bàyyi xel rek. jombal publicité yeeg annonce yi dana gën a yaatu. d'accord jërëjëf ci laaj ba am solo noonu am na solo yàlla nañ ko fekkee jàmm. amiin amiin te weesu ko kon Asura la xam naa. Ah, nga xam ne corona oblige daal. corona de uy corona yàq na lu bari ren de. foofu ah. na lu bari de. Mbacke <laughs> man boo duggee foofu. Ah. <laughs> benn corona yàq na lu bari. ay man lim ma yàqal. Eh. c'est des ah yow mii. ah kan da ngeen daa fekk ma mu jógee mu jógee Italie. waaw ñëw doon ñu samay euro ko weccee ko. ndeysaan. waaw. kon ah. yàlla ma yàlla yërëm nag. Ah, ndeysaan amin waaw loolu kat kiimaan la kat. nag naan fekk nga génn ci conférence koor gi. ndeysaan lu gàtt gàtt nga am. loo mën a yewee say gan. am déet. Mm-hmm. léegi ñu ne koo mu nii jàpp suñu <laughs> na yàlla yërëm. amiin yaa la kat. ah bu ñu feewee su kay loolu kat nag Saliou ñi yor ñi yor ndimbali ci corona bi <laughs> war nañoo dimbali oustaz yi ah <laughs> yi daan conférence ak a dem a dem tukki bitim réew ak kii moom macha allah. su ba laa salu naas ilhaafan. Ah. moo nu dal. macha allah lu na mugg rek ndeysaan yàlla na yàlla yërëm. ndeysaan yàlla baax na yàlla na yàlla yàlla na yàlla soppi jamonoom. amiin. tabarkàlla loolu am na solo jërëjëf ñu déglu xibaar boobu wala actualité boobu lañ doon njëkkee mhm. ndax daa gën a jege daara ji di at mhm. mu yees meeg yi nga xam ne moo ci xew waaye ak mbindulu la rek ma daa dugg na ci biir politique bi mhm. eh, bitim réew ak biir mi yëpp incha allah eh, bitim réew oustaz dañ koy doole ci réew mi ñu digalool eh, di Mali nga xamante ne daanaka mook Sénégal benn lañ man sax léeg-léeg ñu ne ma say maam fa lañ jógee <laughs> ndax xaw na maa nuroog ñoom bërki démb dañoo gis ne rek dañoo am daal coup d'état Mm-hmm. ñoom sax euh, ci Mali ñi ma fa déglu ñuy wax wuñ ko coup d'état ndax ginnaaw ba euh, daa mel ne ñettamal nañ euh, seen njiitu réew ba ne ne démissionné na. Mm-hmm. daal di tas lépp loo xamante ne moo ko yilifoon. nooy mm-hmm. jàngatee xew-xew boobu. waaw xanaa wax président africain yi. président africain yi. ñu fexe ba seen digganteeg seeni i peuple. am relation bu ci am. waaw. Euh, sëñ Mbàkke mhm. am réew dañuy fal nit ci ay carte carte yu bari mhm. jox la ne la dafa am fuñ munta dem ñun ñëpp ndeysaan ñu bëgg nga toog ñu toog nga di ñu fa demal mhm. danañ wut ci sunu biir ay garde rouge ñoo xam ne ñoom sa buntu kër la ñu taxaw nga bu seen jaay si na ci naaj wi bu leen mañ dale duñ ko duñ ko dàq ndax sañu ko ngay nelaw ñu lay garder. boo jógee di dem di tukki ji ñun ñëppay taxaw oto yi. Hmm. bàyyi la nga dem ndax mun ngay doxal yi. allahu boo ñu bisee ñu defal la ko. Hmm. te bu weer dee daañu la fay. Hmm. wutal la oto ak sa njaboot. suñu mbàkk kooku loolu da ko war doy sëkk. wallaahi mun ci problème mu askan wi. du dëgg. defaraat tëli yi. defaraat mbedd yi. defaraat dëkk bi ba koo gis xam ne kii ngi defar. wallaahi imam xamay daana wax ne hmm. ku ne cim réew nekk président hmm. te ñu woo dem marché hmm. def wala la war <laughs> am déet dangaa war a dem marché yow dong dangaa war dangaa mën a dem marché yow dong wala yàgg sa soxna aw xeer dala dal duñ la yuuxoo gars yi de bu ñu waree ñëw deux maanaam trois heures de temps la ñuy commencé kii ah mu nga sécurité bi ñëw di waaj nga xam ne kii muy bëgg ñëw donc ci ci ci ci yi bu fekk yu daa xew ñu naan la def fi dara tee ngaa wàcc defoo fi dara tee ngaa wàcc mm-hmm. da ngay teel a seet sa bopp ba xam mm-hmm. mais moom oustaz daa mel ne mandat bi ñu ko faloon jeexagut xay na dañoo jàpp ne kay eh, maanaam daal mm, ñàkk yor réew ma ci yorin bu baax ak itam dugal sa njaboot ci wàllu politique moo indi jafe-jafe yi ko dal yëpp lu mbir baa ngi noonu mm-hmm. te itam su boobaa buñ ne laa teggil fañ lay jëme teggi ndànk moo koy gën mais africain moom. Mhm. daanaka ñaas ko dóor ko. dëgg la moo koy taxawaat ci sées bi. wallaay sukk rek sukk ba ñëlëb sa loxo rek nga door a jóg. sukk ba ñëlëb sa loxo te ah, loolu te loolu nag ëpp na. doy na waar du dëgg. Mhm. moo tax réew mi ñoom tam malien ya. Mhm. ña ca nekk ca état ba. ñu nekkul ca état. ilimaan yaag ñëpp. ne rek léegi lii moom nañ ci jóg. te aw xeet. kenn attanu leen. dëgg la léeg kenn attanu leen. kenn attanu leen waaw. aw xeet kër attunu leen mais oustaz lan moo ñu daal ñun Afrique ndax itam yi dafa mel ne dañ koy dégg ci ñun lu baree bari rawatina ci euh, boor yooyu diggante Mali Côte d'Ivoire ak yu demee noonu euh, ba ci Gambie gi sax gis nga bi fi yaayee jàmm di jógee rek mujj na ay di buuri sarax ñun lan moo ñu dal li ñu dal mooy bu ñu nankee ci nguur fanaan pale juróom benn weer dootuñu doon kañ doonoon mm-hmm. loolu moo moo dal africain yi mm-hmm. fanaan ca pale juróom-benn weer. duñ doon kañ doon duñ doon kañ doono li fi indi woon. Mhm. daanaka du ci xëy. Mhm. daanaka dootu ci xëy. bu dee ci Afrique. Mhm. yaa ngi naan naa seet sama deuxième mandat nu ma koy amee. boo faloo ndax ma fanaanaat pale. <laughs> yaa ngi yeneen juróom-benn weer. <laughs> <laughs> bu yooyu di jeex nga ne naa seet ba xam sama troisième mandat. waaw juróom yeneen juróom-benn weer. ma fanaanaat ko pale. séenén yooyu ak séentu yooyu mhm. mooy tax yëla war nga di ko jéggi tey mhm. te yëla war nga di ko jéggi bo boo ko boo ko dul def peuple bi dañ lay mere mhm. buñ la meree nga xam ne bu élection ñëwee ñu wàcce la ñoom tam am nañ technique yoo yoo xam ne bu élection ñëwee doo leen mën a wàcce waaw léegi day mujj yàgg gars yi ñu xaarate élection ah loolu la yëfi nag dëgg bu fekkee bu soo ñëwee. Hmm. danañ ko def ci lu leer transparence ñëpp wate ñu xam ne ni la ko hmm. duñ ko def dañ ko fexe ba laxas ko laxasin woo xam ne doo doo doo mën a dem. léegi nag luy pexe mi. Hmm. wutum pexe nag kaay wàcc rek. loolu dong may war a liñ kat. Mbàkke xam nga ne Xadaafi xeetu ma bëggoon nañ ko. waaye nag yàgg ca. turam ba tax na. waaw boo yàggee da ngay sàppi. dañu bëgg a mos leen loolu rek la nag. wallaay wax nga dëgg. loolu rek la. ne ñoom bañ ko fa jëlee amuñu lu ko gën. di ah duñ ko mu ko sax ñoom moom loolu échec total la ci ñoom. Xadaafi mii. Mhm. ak Saddam Hussein. Mhm. xaw ma duñ doon yàq waaye bañ fa jógee moom. voilà lañ nekkoon ci séeréer bi rek moo gën la fa nekk léegi. wallaay ndeysaan Iraq yàqu na. dëgg la dëgg la. Iraq. Mhm. des tas na wiñ njëg. wallaay. ni say ni sayu mat. Euh, lii bi noonu. macha allah ah yéeme na de oustaz xam naa nag euh, foofu nga dugaale léegi dafa am solo lool. lu lu ñeel wàllu troisième mandat yi. Mhm. Euh, léegi nag li xew Mali lan la ci réew yi digaloo Mali war a jànge ndax Côte d'Ivoire euh, Laurent Gbagbo ab ATM bu jeexee day door a jeex te jafe-jafe nguur bokkoon na ci li ko indi. ñu mhm. gañe ko mu siggi ñu ca. Côte d'Ivoire bu dee Guinée gii maanaam lu xaw a raar sax ci élection moo fa am mooy mooy premier tour daanaka dañ laa raw. waaye teewul nga dem deuxième tour deuxième tour nga furli ba rawe lu lu jéggi dayoo tey jii ña ngay laam-laamee ñetteelu mandat yu ci aju loolu itam baadu taal àdduna bi benn yoon tey bërki démb hmm. la xew Égypte waaw Mursi <laughs> gañ gañaay lu leer billaahi ñun nanguñu fii lu leer kenn waxut ci àdduna ba fii nu toog allahu akbar waaw li ngeen def c'est pas normal sax kenn te ko tëj nañ ko mettital ko ba mu faatu ba mu faatu <laughs> ñu naan ataaya. barki démb la deuxième bi faatu xuma barkaat ci démb. allahu akbar ca kaso ba encore. <laughs> baax na ñu tëdd naan ataaya. léegi ñi nga xam ne ñooy ay ajoo ko wax ko def yëf. Mhm. kenn waxu ci. dëgg la fii nag coow laa ngi ne ko nañ ko delloo yëfam. wallaahi xaw ma nag dana ba mu déet. waaw hmm? ah, xaw ma dana ba mu déet <laughs> waaye nañ ko delloo laa ngi ne ko. wallaay wallaay de. waaw man daal. Eh, jëf yi daal mooy. Hmm. ku ñu fal. Hmm. nekkal ca la tax ñu fal la. dëgg la xaalis bi réew mi moom nga delloo ko ci. dëgg la programme réew nga delloo leen ko. Mm-hmm. gis nga boo defee benn mandat ñëppay taxaw ne la ñaareelal. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. lañ defoon Khalifa Sall ci penc ba. wallaay jeex na tàkk dëgg la. dëgg la de yal na ko yàlla mm, muy lu am solo oustaz waaye ku wax la xew Mali da nga ciy tudd ab imaam. di imaam di ko moomu. Euh, te itam imaam daa am nuñ ko xamee woon. xëy na euh, as maanaam aspect bi feeñ ci moom. Mhm. ci li nga xamante ne imaam da ko war a yàgg am la war a bokk. Mhm. mooy dugal loxoom ci liy xew ci penc mi yow nooy jàngate taxawaayu imaam di ko. waaw xam nga suñ <laughs> Mbàkke. Hmm. ñun suñu réew dañuy jël lu yomb. waaw def ko nag benn question bu sensible. Hmm. Hmm. gis nga imaam. li mu def nii. ginnaaw daan réew ma. réew ma fonk ko ba bëgg ko. ba bu président wootee su wootee. waaw la koy topp see ëpp la kenn topp. Mhm. ker lañ ko war a jàpp tàmbalee bàyyi ja bàyyi xel. Mhm. naan ko te ruus ci gaag yooyu. dëgg la euh, da ngaa fi mas tag da mhm. loolu di du yëf yi. te sunu borom nee na man aadaa lii waliyan faqad azantu bil bi kon wax ji du foofu. wax ji mooy naka lañu def ba dugg ci xoli nit ñi noonu. ban politique la def. waaw ban politique la def yan njariñ la amul penc ma. ba bu ñu jóg leen ñu jóg. jar doole ko may dooleem ji. loolu mooy wax ci. macha nan la def ba am ko. te ni mu def ba am ko. Mm. ki ci nguur gi mënoon naa def lu ko ëpp moom ba am nit ñi. Mm-hmm. wallaay. je pense que moo ko ëpp ay jumtukaay. mooy jege nit ñi rek ak amal leen njariñ. dong kat du mm-hmm. du leen. moom sax du njariñ lu muy làmb di leen jox. waaye lu metti nit ñi da koo metti rek. <laughs> léegi nag chef de l'état ba. Mhm. premier ministre ba. Mhm. gouverneur ya. Mhm. ñoo ñoo na ëpp loolu. mais oustaz imaam yi ñaari yowmal xiyaam rek la ñuy waxtaanee ak di tudd doom yeeg di wax ci alaaxira rek. waaw dañoo roy ci imaam euh, ku njëkk sallallahu alayhi rek. <laughs> waaw moo tax it de kon. man lam yaxtam bi umur muslimin fa laysa minhu macha allah ni yi def hmm. ku ci nekk wax ne damaa bëgg redresser réew mi hmm. damaa bëgg indi économie bi nàngam hmm. damaa bëgg def nàngam loolu ci dawarul imaam la bokk rôlu la bokk waaw est-ce que moo tax bu ko imaam defee rek nit ñi jox ko seen xol wallaay mais oustaz bu ñu xoolee imaam di ko bi mu wootee li nga wax mbooloo mi koy wuy si tey boo ko doon natt ci suñum réew ci misaal da ngay gis ne am na ay këri diine yoo xamante ne bu ñu woote woon réew mi njiitu réew woote wala ku man di doon doo am ñetti nit te ñoom duñ joxee kaar duñ joxee dara waaye ñoo yor mbooloo waaw léegi lu xew dañ leen a yëgalut maanaam maanaam njariñ yi ñu war a amal nit ñi ci wàllu politique ba liy metti askan wi metti leen ba ñu xalaat ne Sénégal mën naa xëy am am imaam di ko wala déet laaj nga laaj bu rëy mm-hmm. ba am solo mm-hmm. <laughs> ñun li ñu dal mm. mooy sunu sëriñ si mm. ñi nekk ay taalibe waaw dañ leen a wóolu mm. ba bu ñuy politique yi ñoom duñ politique ñoom sëriñ si duñ politique waaw maanaam dañoo jàppe politiciens yi ay taalibe mu tax duñ xëccoog ñoom loolu loolu oustaz kóolute la wala ñàkk xam ah, kay kóolute seen ci wàllu googu déedéet kóolute la benn journaliste def ci mas laaj suñu Moustapha Saliwul mm. ab laaj yàlla na ko yàlla yokk wér amiin yaa rabbal aalamiin yéen seen démocratie ci seen xilaafa gi mm-hmm. mu ne ko ah, ñun suñu démocratie mooy buñ xasee fal kenn soxlaatuñu lam yor dëgg la <laughs> mm. mais loolu ci wàllu xilaafa gi la ka fa mag jiite kër geeg yooyu. léegi ci wàllu mais démocratie ci wàllu réew meeg yooyu. waaw ci wàllu xilaafa gi xam nga mooy loolu. waaw mais ci wàllu boo ñëwee fii ci politique bi. Mm-hmm. mooy euh, politicien bi. Mm-hmm. ci taalibe la bokk. Mm-hmm. waaw. ah waaw loolu da lay wax bu ñëwee. loolu mais léegi li ma ci jaaxal moom day wax ne ci taalibe yi la bokk bokk ci. bokk ci sax nag waaye bu demee ba ci biir muy def loo xamante ne mi ngi mettital askan bi wala d'accordu ñoo ngi moom wala nangamuñ day mel ne eh, daal. waaw loolu <laughs> doo xam yan baat nga war a jëfandikoo waaye am na lu xew daal ah. waaye daal am na lu xew kay. <laughs> waaye daal li li li cosaanu mbir mi moom. Mhm. mooy rek ñun suñ politiciens yooyu. Mhm. dañoo bokk ci taalibe yi ci kër gi. Mhm. ñu wóor leen ci yëf yi ñu dem. buñ defee lu wuuteeg nag li ñu war a def nag. loolu nag ñoom ñoo koy gàddu. dëgg la waaw te waruñu ko def nag. dañu waroon li ñuy wane ci taalibe. ñu wane ko ci liggéey ba na ko ci penc. wallaay am lu am solo nga lu am solo la. Mm-hmm. loolu moo wutale ñun suñu diggante. Mm-hmm. suñu yëf kon ak yëfi Mali. Mm-hmm. loolu rek moo leen wutale. ñun ñii dañu nekk ay taalibe di ñëw ci kër gi di di di di jox addee comme ñëpp. di teew ci barab yi comme ñëpp mhm. bu demee ci seen barabu euh, politique politique ba nag tëral fa yeneen yu wuuteeg yi xam naa yi ne ci kër gi mhm. léegi nag loolu euh, xëy xëy tey dina ko tey wala ginnaaw suba euh, mhm. c'est pas facile dëgg la waaw bu ñu demee nag ba wóolatuñ leen nag léegi tey sëriñ si wàcc ci suuf nag politique comme ñëpp wallaay lu am solo la oustaz oustaz ndax seetlu woon ne kon benn rupture moo am ci diggante bi ndax boo seetloo tey ku mel ne sëñ Touba wala ma dem sax ca la gën a kawe ku mel ne Thierno Souleymane Baal ñoom almaami mhm. Abdou Khadir Kan ba nga ñëw ci almaami Maba Jaxu Ba ñëw ci ñoom sëñ Touba ak Cheikh Siraaji Malik kenn ku mhm. ne jël position ci àdduna ak itam dog dugal sa loxo ci doxalinu àdduna am projet de société coono boo tegoo looloo la ko teg waaw waaw léegi nag ñun ñu bëgg a jàpp rek fas suñu loxo di dund ci seen barke nag ne lépp a ngi dox waaw taalibéy léegi <laughs> dañoo wuuteeg taalibéy démb ya <laughs> ah bon waaw. taalibe léegi dañ ñëw ne la yu sëñ bi. Hmm. yónni ma. Hmm. naan sëñ bi yónni ma. Hmm. xam nga sëñ bi yónni ma. doxalutoo sëñ bi ab yónnentam. waaw <laughs> ah, yónni ma de moom. waaw <laughs> nee nañ ku ne baa yónni ma. <laughs> am na am na da ngaa soxla fam la da ngaa soxla fam la yónni. wallaay wax nga loolu rek la sëñ Mbacke. Mhm. waaw macha allah. am na solo oustaz kon jërëjëf ñu masawu waa Mali yëpp ak waa Afrique yëpp ci coono yeeg benke ñenke yooyu. Ah, ndax yaa ngi xaar Sénégal xëy am am imaam mm, diko ci yéen imaam yeeg oustaz yi. moo xam ne dana taxaw samp boppam ak bari ay imaam diko. Hmm. imam ju jàng hmm. xam lim jàng hmm. am dimension ñoom seen yooyu hmm. ak koo barile ay defin lañu ñu wutale fii ñoom duñ def noonu fal nañ kii wala fal nañ kee wóolu nañ ko na doxal point ñoom noonu lañ fii noonu la Philippe Sénégal loolu fi xew damaa déggul Mali ay imaam yuy attaqué imaam di ko te ñun bu dee fii imaam ju jóg euh, boo waxee say moroomi imaam ñooy sa problème bala nga leen a convaincre bay jàll ci keneen rek boo moytul sa dund gi jeex jeex na comme sens bi ñu <laughs> saa change mi am mooy ñoom ñëpp dañoo takk seenu say jox ko jënn imaam ndeysaan ñun nag fii ah imma ngay wax bu ci kenn waxee sax moroom jóg ni ko waxoo dëgg waaw ceeb laa añu mën a ko añu woo ceeb dëxin nga añe fee nag loolu amu fa est-ce que bu jógee ñëpp jóg mhm. bu ne toog leen ñëpp toog wallaay lu am solo la lu am solo la léegi nag fi ne ku doon def ca lislaam ci dara da ngay dem jox ko imaam di ko rek <laughs> mu jeex waaw moom de wax di yàlla li mu wane ci démarche am ko jox mu def ko ci fii nag boo ko yoroon fi ne koo koy jox ah ku ne jox ko sa waay rek <laughs> jàmm na ñooy oh, am na solo oustaz li ma jaaxal nag mooy bi coow li amee Mali ñëpp dañoo daal wax ne France lu mu wax mu mel ne dañoo jàpp ne moom am na ci kàddu gu rëy ñu ne France nee ne ñaawlu na ko président yi nga xam ne ñoo nekk CEDEAO euh, bu Niger ak Sénégal ak Côte d'Ivoire ak Guinée ak ñeneen ñi war a daje wax te ñoom ñooñu ñëpp di daje kenn ku ne saw askan nag la sikki mu ci ay yëf loolu itam noo ko gisee. waaw <laughs> laaj nga laaj ba am solo mooy gis nga yooyu ñu def di leen organiser CEDEAO ñu mel ni ñoom. mun mm. doo nga fay nekk. Mm-hmm. waaye kuñ si joxañ dara ne la def ko. Mm-hmm. bul ñuux doo ko def. Mm-hmm. loolu rek la dëgg la. ndax membre nga fa wala am nga fa membre ñu toogal la fa suñ na laa togg leen dëxin tey bu la neex nga ne hee ñun togg ñu dëxin fenn mbaxalu sàllum la ñu togg wala mbaxalum Kébé meer ndeysaan donc ñun loolu loolu moo nu dal léegi nag ñoo ñooy tase na nañ def nangam nañ wax nangam léegi loolu daal la ko waroon jiitu mooy président bi bañ naan ko def la bul def mm-hmm. unsur axaaka zaaliman aw mazluuman mm-hmm. ñu woo ko ba mu ñëw ñu ne ko hee. fii nga jëmee réew mi kat baaxut. Mhm. waaye ñun duñ def na mhm. jaadu war nag bu nit xawee am rupture digganteem ak aw xeetam. Mhm. CEDEAO jóg. wax ca ne ko yow kat fii ngay dox ni du foofu. dëgg la dëgg la waaye bu fekkee dañu bàyyi ba ndox ma tooru an bàq doo nga fay des nag. waaw an bàq doo nga fay des. te itam suñ la xasee def nii même buñ la delloon woon fa nga toog sa toogin du bokkoo toogin mu njëkk wa mm-hmm. dëgg la ñaari toogin mënut a bokk wallaay waaw ndax toogin mujj moom mm. da nga xam ne toogin mujj wi mm-hmm. yaa quelque chose dëgg la wu njëkk wa nag tabarkal la wallaay ndeysaan ah am na solo oustaz ba noppi itam na lool ak ñi nga xamante ne noonu lañ koy dundee ci àdduna si eh, damaa xamut ba xam nag réew yi dend ak Mali ñoom lan lañ ci war a jàngi fi mu ne ñoom daal lañ ci war a jàngi mooy mm. lii ko dal bum nu dal mm-hmm. li ko ko yóbbee nan ko moytu jàmm na ñooy lii ko dal wum nu dal li ko ko yóbbee nañ ko moytu. Mhm. jàmm na ñooy. Mhm. waaw macha allah muy lu am solo président Mauritanie ba woon yaa ngi dégg ñu ne moom itam ña ngi koy uh, jàpp ci wàllu yoon ak di mhm. xool di ko am yu ñu koy tuumaal ak yi nga xam ne moo ci aju xam naa ñun waa Afrique ak suñu mbir de am nañ am nañ tuuti ay ay jafe-jafe de te kat bu na ko tubaab bi waxee ñu mer di fuddi suñu dënn waaw te ñoom loola dalu leen ñoom <laughs> bu na ko bi waxee <laughs> ñu mer fëgg suñu dënn bu noppee ba dem nag lam ñu doon wax nag nu na ca jóge ci biir réew sëñ Mbàkke te mënoo faxas say loxo mënoo siggi waaw ñuy dem ba di la topp ay juróom fukki dërëm ak fanweeri dërëm mhm. loolu ku ne war na koo jom mhm. waaw mhm. sëñ Cheikh daana wax ne ni la def ngàbb seen dokk yi di wër Afrique ba Afrique xëy alku waaw rek waaye wax na dëgg wallaay donc loolu moo mooy moo moo ko dal mooy dem ba wàcc ñu seet ci ginnaaw gis ne am na kat tur bu rëy. Mhm. boo xam ne bu yàgg fi ay kaay nga lay ko wallaay. loolu nit mën naa dugg ci dara ba ci jëla bu nag suñ mbàkkee. est-ce loolu yomb na ci ñoom ñun daa mel ne ni ñuy ah. faloog li aju ci sa yëf yëpp boo moytuwul. waaw ku ci topp ku ci topp ni lay ni ñu lay ni ñu lay santaase day. nga def loo mënut a def. wallaay wallaay ku ci topp ni lay santaase. Hmm. defe naa keroog suñ conférence ba ñu nekkoon fële doon wax. waaw rôle rôle rôle su euh, citoyen ci hmm. koñ. Hmm. ba may wax ne. ci falu ci koñ bi. te kuy ndagar walla indi lettre. Hmm. koy taasu indi lettre. te bu ci joxut am problème. <laughs> ndagar walla lettre yi bu ci nekk rek bu ci doon def vingt mille képp. budget la boo xam ne mënut ko. dëgg la te chaque samedi mu am ko chaque dimanche mu am ko. Hmm. plus ngénte yeeg. Hmm. ñii ñoo naan ko yeewu ma. wallaay léegi nag santaas yooyu buñ la ko tegee boo ko nangu nangulee saw xeet rek. fa nga jëm mooy kàmb gu xóote xóot goo xam ne gi boo fa boo fa jógee kenn du ko mën a sakk. dëgg la. dëgg la waaw. macha allah wa jëf jërëjëf jërëjëf oustaz euh, jërëjëf ci tomb bu am solo boobu ak euh, ni nga xamante ne noonu la ko àdduna gise ak euh, yi nga xam ne moo ci laxasu yëpp yu yaatu la. Mm-hmm. dellu si ci biir réew mi ñëwaat ci wàllu njàng mi. ay yi nga xam ne moo ci aju mm-hmm. defe naa ci ay bis jii ñi ngi ci entrant sixième mi mm-hmm. ay yi nga xam ne moo ci aju loolu rek da nekk événement boppam donte déggaguñ ci genn jagle gu ci am waaye nag contexte bi mu amee ren nga xamante ne liñ jàngut moo ëpp liñ jàng loolu man jàngat nga ci def man tey suñu mbàkkee dama seeg ay gone ñu jëm fa ñuy defee examen bi mhm. ndeysaan sol seen tenue yu bleu mhm. euh, takk mask mhm. tey ndékkiwuma seen masque daal waaw lu tax ndékkiwoo waaw ah. xaw ma daal mu daal sama yaram ñëg na fa loo xam ne <laughs> damaa ngi ci kër ga sëkk sama saak xam dugg ci néeg ba ndax masque yi wala euh, coono bi ñuy jànkuwanteel. waaw da affaire bu yërëmtal ci man tey. Mm-hmm. gone yi ñu ngi defi ñu ngi defi examen. Mm-hmm. sëñ Mbàkke. Mm-hmm. te te suñu ñoo laalante. ndeysaan. suñu joxante loxo. waaw kenn ndar kenn Dakaaru. kenn ndar kenn Dakaaru <laughs> ñëpp sol seen masque yu weex. wallaay ndeysaan. daw na yaram lool. dëgg la yàlla nañu am diplôme yi ñëw ci nag. Euh, penc bi. ci lu jàngale. léeg-léeg nu toog lu yàgg sunu programme bi du àgg ndax gerew yeeg jàppal bàyyil. ren nag plus corona bi. xam naa ko lañuy laaj ku ko ci am jàmbaar ga. la laaj ko ci am. jàmbaar ga. dëgg la ku ci amut it bu mu la tax a mer bu mu la tax a sonn bu mu la tax a xaru. que du dëgg. waaw loolu la. dëgg la ñu yëg ne daal euh, réew mi soxla na xam-xam. Mhm. bu jóge ci ñooñu. ndax ëllëg li fi nekk ci ci loxo ci seen loxo lay tege. dëgg la waaw. waaye daal feebar bi daal indi nañ ci loo xam ne daw na yaram loolu sëñ Mbàkke. allahu akbar waaw. macha allah ndax kenn ku ne boo ñëwee sa taabal kese ngay toog yow dong. Mm-hmm. doo toog ak kenn. Mm-hmm. wallaay ndeysaan ndeysaan muy lu am solo oustaz xam naa njàng mi e, bañ a doon année balance jaral na e, way jàng yi lu bare baree bare waaw ah, waaw ci nekk waaye góorgóorlu nañ daal ba taxaw tem mu ci sooyee ko moom sëñ Mbàkke mm. jàngale bi gën a jafe wallaay jafe na gis nga su ma la doon jàngale yéen ñooñu ci bureau bi. Hmm. Ah, ci ci studio bi. Hmm. ngeen ñi yéen ñëpp kenn amu ci moyen. Hmm. <laughs> lu xam. <laughs> ci xanaa dañu naan jàngalekat bi la. ah waaw <laughs> ah. yéen ñëpp kenn amu ci moyen. waaw. léegi nag su su ma leen jàngalee kenn am moyen. ñaar ñi amuñu wala nangam. dañ ko mën a dégg waaye ñëpp kenn amu ci moyen moom mhm. dañuy wax rek nangam ak nangam mhm. moo tax ane bu ñuy jàng ba mu yàgg ñu jékki-jékki ne ren examen du am mhm. wala examen bu amee li jàll bëriwul wala nangam ak nangam loolu ci jàngalekat baaxul ci ñoom waaw bu njëkk nag jàngalekat daf daan jàngale di yar lu mu am jël waaw daan jàngale di yar lu mu am jël léegi nag xaw naa soppeeku tuuti ndeysaan ndax la ko yi nga xam ne moo ci aju waaw laay am na solo ku lu bare bare bare la dëgg la ndax eh, élèves yu njëkk ya mhm. ñi am certificat mhm. élèves yii ñu amee BFEM mhm. buñ taxawee di làkk ñi ñoo leen di man dëgg la ndeysaan ñi la ñoo leen di man ndax njàng mee daa gënoon a euh, xóot daal njàng mee daa gënoon a xóot gënoon a baax gënoon a jekk te ba da nga njàng jàng ba noppi di am ay leçon morale ndeysaan waaw ay yar yar yoo xam ne ci biir njàng mi soo jàngee ba noppi kenn nit ngay doon léegi nag yooyu daanaka amatul léegi waaw jigéen ñi bu ñu ñëw lu neex solo xale yu góor yi bu sol gi xew ci mbedd mi ñi mën nañ ko yóbbu ci ñu tëdd dama am léegi benn étudiante bu ñëwoon kër ga mm. ne ma dama bokk ci ñuy def euh, bac mm. def def naa def naa anticipé naa filo ba noppi loo may dénk loolu la ma gone ga wax mbàkke mu hmm. ne ko dangaa nekk ci ñetti milliers hmm. mu ne ban ak ban mu ne ko kër gi hmm. mbedd mi école ma ne ko li ci kër gi li ci nekk li ëpp dafa baax li ëpp baax na mu ne waaw ma ne ko mbedd mi li ci ëpp baaxul école ba am na lu baax am na lu baaxul ma ne ko li nga am ci kër gi da koy téye boo génnee ci mbedd mi melal ni ganaar mun ma ganaar mel na ma ne ko ganaar mel na waaw mu ne mu ne ma lii loolu ma ne ko boo nekkee ci mbedd mi loo gis mu baax jëlal hmm. lu baaxut bu ko yóbbu sa kër hmm. bu ko yóbbu école ba it hmm. mu ne ko bari ma ci école ba it la fa baax lépp. Hmm. loo gis mu baax jëlal. Hmm. lu baaxut bàyyee ko école ba te ñibbi. Hmm. te de denc la nga amoon sa kër yow. est que est que. waaw yóbbal boobu laa ko jox sànq. macha allah yóbbal bu am solo la. <laughs> yóbbal bu am solo boo xamante ne defe naa ñii dégg ñëpp kenn ku nekk dana ci am wàll wu mu ci war a jël ndax li nga wax léegi dafa am solo daa mel ni njàngale dafa war a ànd ak yee nit ki waaye dafa war a ànd ak defar ay jikkoom maanaam former ko tàggat ko ak fexe ba mu comprendre yëf yi ndax jàng rangale ay diplôme baax na waaye bu ànduta ko yeewute itam daanaka formé woo kenn jeex na mm-hmm. léegi njàng mi suñ bàkke mooy deux plus deux mm-hmm. <laughs> njàngum léegi mii ñu ne waa ji na ñu ne waa mm-hmm. waaye njàng li mu njëkk moom élève bi da daan doon koo xam ne yaa koy formé moo tax bu njëkk jàngalekat bi moo daan mag étudiant bi suñ bàkke hmm. léegi nag jàngalekat beeg étudiant bi ñooy maase. dëgg la de. bokk benn génération. Hmm. moo tax xale bu jigéen mën na ne ci classe bi. noban nobante ki koy jàngal. Hmm. ndeysaan. dañoo maase. génération lañ dañoo maase. bokk ay langage jàngalekat bi. très bien affaire bu garaaw ngi noonu. affaire bu garaaw bu njëkk ne da ngay mag ki ngay jàngal. ba day defe ne papa ma ne ci sa ci ci salle bi. allahu mas naay jàngale dëkk ñax jawre kuta hmm. ndeysaan waaye kero ba ma gone ga ne bàyyi ustaas at mi yëpp lañ ko joloon ree ah hmm. nga bàyyi ustaas waaw mel ne daa xaw a kii de daa hmm. <laughs> yëpp daanaka dañ ko ci doon ree ci bàyyi ustaas waaye man la ma ci jàngale mooy la ma ci doon jànge mooy ndekete moom jàpp na ne mat naa ko bàyyi kon nag naa ko téye foofu mat ko bàyyi <laughs> moo tax mu ne la bàyyi. waaw waaw. lu am solo la macha allah am na solo lool. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tomb bu am solo boobu. xam naa ma jeexale ko ci ñaari ci benn bi mooy wàllu masque yi. Mm-hmm. takku masque moom daa mujj doon euh, fitna lool ci nit ñi. Mm-hmm. mu mel ne sa waruñ ci. gaa yaa ngi wax sax xaalis bu bëree bëri yoo xamante ne police mi ko ci lijjanti waxoon naa ko ci ay bis gi ñu génn te itam mi ngi noonu gis naa nag kilifa yi ñoom ñi ngi takk masque ndax gis naa sëñ Muntaxa mu takk masque bu rëy ak euh, euh, loolu nekk exemple waaw sa masque ngi noonu nga takk macha allah <laughs> loolu nekk ay exemple yoo xamante ne nii kon daa war a tax nit ñi gën a fonk takku masque waaw man daal war nga koo takk dëgg la de waaw <laughs> man de sëñ Mbàkke hmm. sama oto bi yëpp ay masque la ndeysaan sama oto bi hmm. ay yëpp ay masque la ndeysaan ndax Alimran defal nañu may masque hmm. directeur directeur Senelec may na may masque sama oto bi yëpp masque la foofu seen maa ngi masque waaye ku ma romb masque woo itam naa la la ee tax masque woo boo ne aw ma ma tegg benn jox la man noonu lay def kër gi kuy bëgg a dugg si. Hmm. su ma la xoolee ni masque woo. Hmm. ma ne mul demal wuti masque door a ñëw. donc masque yi am na lu man hmm. su mënul lépp am na lu man ndax ginnaaw feebar mën naa jóge ci wax kee di wax kii di wax. ah kon masque mën na ci dara. ginnaaw mën naa dugg ci joxante loxo. kon raxasu mën na ci dara. am déet ginnaaw mën naa jóge ci riisonte sorante ba ñu ci dara waaye oustaz ñi ngi dajaloo marché yi fi mu ne day fees dell ak ndaje yu bare bare bare bare bëri walaay ndeysaan day mel ne takku masque yi moom doo xam moom kay finalement takku masque yi pour lan la xaw naa yéeme sax nag waaw parce que feebar daa mel ne dafa bëri ay contradiction daal ci wax yi nii ni ñuy waxee bu ñu maanaam doo xam li ñuy tere ak li ñuy digle daw yara te lu daw yara mu ci nekk waaw ndax mën naa dal benn xale mhm. mu jox ko benn paa waaw xale ba dox yi soxlaam paa ba jóge fa waaw dégg naa ci mag ñi la aay lool léegi eh waaye nañ sakkanal mag ñi. bu lool. ñun lu jar na di takk masque. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag euh, pinc mi ba léegi am na ñooñ. Mm. suñ mbàkke. Mm. langage bi ñu waxee ak ñoom ci ci feebar bi. Mm-hmm. pour ñoom léegi yaa quelque chose. ba léegi. am na ñoo xam ne pour ñoom yaa quelque chose. dëgg la damaa xamul su. su kër docteur. li nit ñi xaw a wuure di ko léegi. Ah ak message euh, jàngalekat yi mm-hmm. ak xaw ma fajkat yi ak jàngalekat yi kon ak attekat yi mm-hmm. ñett yooyu mm. buñ leen noppee wóolu rek penc mi tàmbalee yàqu. Mhm. daa mel ñoom ña góor a góorgóorlu ak ba ñëpp wóolu leen. waaw niñ koy waxee daal ni ñu koy jëfee moom da koy weddi daal. waaw jëf ji moom day weddi lool. Mm. acte yi nga xam ne moom la ñuy. loolu yëf yi su boobaa nag ñun ñu ngi ñu ngi la waaw dëgg la ndax doo xam fooy teg sa tànk. la ca tege mooy loolu ñuy nangu ci nit ñi. 30 mhm. millions yooyu ñu ne jot nañ koo am ñu dul masque. loolu baax na de waaye nag na am fu mu dugg. waaw naam fu mu dugg. na dellusiwaat ci ñun. na dellu oh, très ah, bien kon dana tax ñuy sawar ci di ay taxes. gis nga yi ñuy teg ci mbedd mi bu ñu ko doon teg ci di ko delloo ci mbedd bi hmm. léegi te Dakar nekk apanaal wala réew mi yëpp. Hmm. Ah, waaw hmm. waaw. am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci tomb boobu ma jeexalee xibaari daara ji ci jumaa ji li nga xam ne ñu ngi ko war a ubbi ca Poroxaan. Euh, xalif général de Mouride dem fa maa ngi jot léegi ay information ñu ne euh, woowuñu nit ñi ndax moytu rassemblement yi ak yu demee noonu mhm. waaye dañ koy euh, taxawal rek daal ubbi ko bu ëllëgee ci àjjuma ji noo koy jàngate alhamdulilah xanaa ndokkeel ko ci mhm. ñaanal ko ci ñaanal ko it naal yu ba yëpp mhm. yàlla na àgg ba mu tàmbali yeneen amin yaa rabbal jumaa moom sëñ Mbàkke hmm. fu fu nekk bu hmm. fu ubbi ko rek nekk lu am solo. Mm-hmm. te itam sëriñ bi avant muy nekk xalifa. Mm-hmm. la ko tàmbali woon. dëgg la lu mu am def ko ca. waaw lu mu am def ko ca. ba yàlla baaxee ko ba mu fekkee jeextal bi. Mm-hmm. wax na ne it da koy daal ubbi daal di ñibbi. bëgg faa nekk wax dëgg yàlla loolu ñuy tere. rassemblement ak ñoom seen yooyu. bëgg koo tere ba noppi di ko def. waaw bëgg koo tere ba noppi du ko def. kon nag yàlla nañ ko julli ay ati ati ati at. te itam lépp ànd ak wér-gu-yaram. ak poche def dara. dëgg la. waaw tabarkal macha allah am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci taxawaay boobu ak euh, tomb boobu nga xamante ne moom la ñu daaneele li nga xamante ne mooy xibaari daara ji actualité yi moom du jeex waaye daara ji bu ñëwee tànn ci yoo xamante ne rek moom lañuy ñuy gën a mën a waxtaane waxtaane ko ñu ubbee woon ko ci génn àdduna imaam lamin Sarr bu euh, bu asalem mm-hmm. eh, ñaan borom bi subxanahu wa taala mu jéggal ko te xaare ko aljanna. Mm-hmm. te taxawu mboolem imaam yi. Euh, taxawu mboolem kilifa diine yi. nes tuuti ñu ñëw ci laaj yi auditeurs yi yónnee ci email bi. مصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ci defem seen rajo bi ngeen xool seen montre 23 heures jot na ba teg 40 minutes xaj Mbàkke nee na mi ngi ñëw ci laaj yi jaar ci email bi albidayatu arobas yahoo point fr jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy déglu jërëjëf ñi nga xam ne ñoo dem ci email bi envoyé ñu fa seen ay laaj ak seeni nuyoo nuyoo ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ki ñu ci njëkk a jukki ab laajam oustaz mi ngi tudd Cheikh Mouhamed Sangaré mhm. ma nga fële ca Kaolack mhm. moom dafa indi ay nuyo ak ay siyaare ak ay ñaan waaye jot indi ab laaj kon ñoo ngi koy fay nuyoo di nuyoo ak Kaolack yëpp rawatina waa kër sama bàjjen yooyu soxna Mari Diak mhm. eh, tabarkalla macha allah eh, soxna si ci topp sax eh, noonu la sant Diak di yaay Faatu Diak allah nekk fële ca hôpital Fann moom itam dafa indi ay nuyoo ak ay siyaar ak ay ñaan ñoo ko nuyu yëpp rawatina soxna Ndey Faatu Fatou Diallo Albert Royer ak professeur Moussa Gueye macha allah jërëjëf oustaz xam naa ñu ngi ciy teg itam ay laaj ay nuyoo lañ indi di hmm. soxna Abi soxna Aram mm, ak euh, euh, soxna Ami la ñoom ay nuyoo lañ indi. ak ay ziar waaye indiwuñ ay laaj. ñu leen di fay nuyoo ñu leen fay ziar di leen ñaanal tawfiq. macha allah di ko ñaanal Maam Mor Japaddu. Maam Mor Japaddu waa suñu xarit ñu ngi koy nuy bu baax a baax. ak boro ak boro <laughs> jërëjëf Ablaye Dem moom Oustaz indi na ab laaj. Mm. nee na euh, fidèle auditeur la. wala laay Dem dafa wax rek bon continuation kon kooku indiwut ab laaj. Mm. waaye faatu Ndiaye moo indi ab laaj. nee na leb ci banque lan mooy àtteem. bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim mm-hmm. bu dee banque buy def système islamique mm-hmm. leb ca banque wàññiwul dara mm-hmm. bu dee banque bi def système classique yii nag nga xam ne boo fa lebee junni junni ñaar téeméer ngay fay loolu daa xaraam lislaam da ko tuddee riba bu daganul wala intérêt bu daganut mhm. muy riba macha allah leb ba noppi teg ci dara di fay mhm. wallahu taala alam wa shukran d' accord bu dee banque boo xamante ne banque l'islam la wala buy def système yi nga xam du la jox xaalis niñ ko fi baaxoo waxee waaw da lay jëndal li nga soxla boobu dagan na boobu dagan na wala bu la joxee xaalis du ci teg dara hmm. bu dagan na waaw nga xam da nga ñëw mën a la euh, Mbàkke da nga fi denc sa soixante millions mhm. ñu daal ñu ne la waaye dañ ciy liggéey dañ ciy liggéey léegi nag léggéey ba bu ñu paree boo ñëwee daañ la wax ne la sa millions yi lii mooy bénéfice bi ci tege liggéey bii nag du dañ koy lebal keneen fab leen teg ci déedéet su boobaa nga xam ne bu amee bénéfice yéenee bokk bu amee parti yéenee bokk su boobaa day dagan bu la jëndalee am bagage tam jënd la kër wala mu jënd la oto. bu boobaa day dagan waaw mu mu lañ koy tuddee. ci ci ci ñoom. d'accord su boobaa loolu day dagan. ñii nag dañ la wax ñoom dañ lay lebal euh, soixante millions. Mhm. booy fay da ngay fekk cent franc yu ne nga teg ciw dix. Mhm. dix pour cent wala cinq pour cent. Mhm. léegi su boobaa dañu la koy tere. ndeysaan waaw. ndax yàlla si naa mënu mm. ittaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina wallaay ndeysaan wa shukran jërëjëf oustaz loolu am na solo kon de xam naa phénomène la mm. ci wàllu leb ci banque daa mel ne yu baree bari nit ñi mënatuñ koo def te jëflante wuñ ci waaye bari na nag euh, ay jafe-jafe yu ci nekk ci wàllu diine ko dégginam waaw diine ku dégginam dañoo waroon lu ñoom tam ba am barab yoo xam ne ku cay leb ñu lebal la ok waaw wax dëgg yàlla loolu mooy yëf yi. fi ne ci réew mi am na fi ay euh, homme d'affaires yoo xam ne. mënoon nañoo booloo am ay yëfi lislaam. waaw waaw yëfi lislaam. gannaaw ñun ñi dëkk ci réew mi ñoo ko ëppee. tey waroon nañoo fexe ba mbir mi jubu ci ñun. waaw yàlla xam na ko de. day ndax li fiy génn li fi génn ci azaka. Hmm. di fi génn di jëm ci suñu xewi diine yi. Hmm. loolu defar na ko. dëgg la dëgg defar na ko. wallaay nga xam ne ku soxla boo ñëw mën la caa lewal. Hmm. boo leqali koo ñëw fay. fanazirun ila maysara incha allah mooy ci wallaay ndeysaan am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel di la jot li nuyoo sëñ Daouda Mbacke bu sëñ Mourtada mhm. nee na bég na lool ci émission bi ak laaj yeeg ni nga ko tontoo waaw dinañu faral di bind moom tam di faral di bind foofu macha mhm. allah ñu ngi koy bégg baax baax sëñ Daouda yàlla na yàlla gën laa sàmm amin yaa rabbal defal la barkeeg tawfiq amin amin jërëjëf sëriñ bi ñu ngi koy siyaare baax baax mbokk mi ci topp mi ngi tudd Ibrahima Mbay mhm. am naa turandoo Ibrahima Mbeng mi ci studio bi la Ibrahima dafa laaj oustaz neen dafa bëgg nga ñëwal ko ci zajrul xulub bu maam Cheikh Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu nee na nga tënkal ko ko daal. waaw su ma ko doon tënkal day hmm. mooy zajrul xulub mooy jàjji xol yi. Hmm. jàjji xol yi. waaw. Hmm. xam nga danaa koy def léegi su ma daan jàngalee al adabul arabi. waaw ndeysaan. lu ñu tuddee munaasabatul xasiida. waaw booy bëgg a jàngal gone gi. waaw ci ëdëb. dafa mu tuddee munaasabatul xasiida. maanaam xasida gi lu tax lu tax ñu bind ko. waaw lu am solo la waaw lu am solo dama leen toog misaal nag ne leen sëriñ bi daa amoon gan. Cheikh El Hadj Malick. gan nga jékki ba ñuy jul tisbaar. bi sëriñ biy jàpp mu gis ne bopp bi am na bejaaw. mu domp ca kawar wan ko. waaw nu nu la leen ko daan defal. ba jege si leen. su xasee bi wéree. noonu la. su wératin man munaasabatul xasida rek laa ci doon jëm. waaw ngir ñu bëgg a dégg li ngay bëgg a wax. voilà li ngay bëgg a wax da koy wutal jawwam. ma ne leen bi mu soppite coppitee kawar gi nag muy gu weex daf ko koo wan. bi mu ko wanee nag. mu daal di ko jox ma këyit. ak bindukaay. waaw ma tontu la. ma tontu la ci kawar gi mu wan. xam nga yi ñaan yaa ngi bi jaaw de. waaw daal na ko nag xëlil dëxëru intaaral xuraabu yatiibu <laughs> wa jaa rasulul mawti baadi yanuubu wallaay ne ko araaka nasiital mawta wal mawtu mawridun wallaay fa lil kulli min bahril moo tax a tudd zajjir zajjirul xulub waaw ja jàjj xol ah, xol yi day jàjj xol lu mu ko wax mu ne ko xalit dëhëru waaw mu ne ko hmm. ndax bu bu baaxaañ naawee ci nit àdduna hmm. mën naa neexati hmm. waaw dafa am âge boo xam ne bu ci xasee toll bu buñ ko joxee lëwal mu ne daa weex buñ ko jeexoo ceebu jën mu ne dëwlin ci dëgg la am déet dëgg la buñ ko la lal ba mhm. mu ne daa sonn <laughs> wallaay ndeysaan cey mag cey mag mhm. moo tax mu ne ko araaka nag na siital mawta ndeysaan dangaa fàtte dee mhm. wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahril mamaati nasibu ndeysaan muy bàyyi bu am solo googu. dëgg la dëgg la ba sukkuraan ci laajam bi. macha allah oustaz jërëjëf jërëjëf ci tontu lu am solo loolu jërëjëf mbokk mi yal na yàlla fayal ñu. amiin eh, suñu mag ñi. wallaay seen taxawaay rafet na ci diine ji. munu fee sa te matale nañ. wallaay ndeysaan bind nii rek ñun oustaz jànguñ ko waxuma ak di ci dolli leneen. waaw ñun daal am nañ problème. bu ma daan jàngalee xoqa. Hmm, waaw xoqal bu kaaw. waaw dama naan leen <laughs> moom tam bu ma ko bëggee defal munaasaba. ndeysaan dama naan leen sëñ bi dafa toogoon waaw. ndeysaan yuy fudd daal ni la a'maalu bi waaw ci fudd ga. waaw suñ bi tegal ci ko niyyati tabarruku bi saadaati. Oh. <laughs> Hmm? Mm-hmm. kon léegi. waaw tàmbali na jeexal na ko. Mm-hmm. léegi nag kooku nag nekkoon léegi kon. Mm-hmm. danaa tàmbali loo dul jeexal. waaw da ko yónnee baatu bu baatub <laughs> xoqa ne ko. rek ca rek yem ca xoqa waaw. mooy yeyoo na yem ca képp rek yem ca képp ba xam lu mu ciy teg ba xam lu mu ciy teg ginnaaw bi ne il mal amali at yaa mu ci tegal bu nii tabaraku bi sadaati léegi bii loo ciy teg mhm. mu ne ko xuqal bu kaw ala sadatin amwaati tabkil araadi alayhim ka samawaati waaw kii alayhim wa arju fil bukaa yi xadan moo wax ko góor gi rek mu dañ mu dañ ma ci dënn <laughs> mbëkk la. bañu mbëkk. daanu jël <laughs> daanu jël la. gars yi loolu la ñu xewal léegi dañu daanu di mbëkkaate man di nag ma mbëkk ma jaaxaan ku ma mbëkk xam <laughs> hypercule de laa lay dóor. <laughs> donc yooyu sëñ Mbacke. ci ci culture suñu mag ñi ci araab hmm. xasida gu ne bind nañ ko. wallaahi. façon bu ne bind nañ ko nag. te lépp ci yonent bi alayhi salaatu salaam. waaw. yal na yàlla fayal ñu leen. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal mbokk mi ci laajam bu am solo boobu Cheikh Ibrahima Bey eh, ñu ngi koy nuyu ki ci topp mooy maam seex Mbay mhm. maam seex nee na mi ngi sàkku ginnaaw bi mu nuyoo nga indil ko rek ab ab tënk ci dunduk eh, wala ci xilaaf Omar Ibnu Abdul Aziz lan lañ ci mën a jànge maam Cheikh Mbay Touba mhm. jërëjëf koo kay li mën a jàng ci xilaafaam dafa bari tërëy mhm. bokk na ca suñ mbàkkee hmm. eh, yaayam hmm. yaayam waaw yaayam ndeysaan yaayam dafa rat xarma hmm. soow ma bëriwul ndeysaan mu ne yaayam yaay so xar mi da tey dafa gàntu ba soow mi bëriwul mun ne ko tànqal ci ndaal yokk ci mu ne ko yokk fan mun ne ko ca soow mi ñu jaay ko mu ne ko loolu Omar da ko doon tere démb Omar nag moo nar a nekk maam yi <laughs> waaw. maami. Omar ibn Abdou Aziz. waaw. Mhm. xale su jigéen sii di wax ne. waaw. yaay duma yokk soow mi ndax dama déggoon Omar di ko tere. Mhm. Mhm. Mbàkke. Hmm. foofu ñun ñuy ñuy jàngale diine. war nañ fii dugg lu bari ndax nit ñi déggunu dëgg la waaw. penc mi déggunu ba léeg-léeg ñu ne càpp dara. Mm-hmm. daan ni waxoon na ko. waaw oh. nga xam ne nit ki dalaa war a bëgg. waaw gëm la. waaw ba buñ ko nee oustaz waxoon naa nga mu man koo bàyyi. ndeysaan ay gore. oh gore <laughs> walaay ndeysaan walaay loolu doy waar la. waaw xale bi daal julli woon jumaa. Mm-hmm. dégg Omar di tere. Mm-hmm. yokk ndox ci soow di ko jaay. xale bi na du ko def yaayam ne ko da nga ko fi def ñu du ko def. wallaay. c'est dégg mhm. léegi information bi ñu koy partagé ci Omar. wallaay bi mu agsi ci Omar ba Omar lii audio bi. Mm. <laughs> c'est ne gone googu fu mu dëkk. Mhm. ñu ne ko quartier sàngam. Mhm. ku yaayam diw. mu ne Abdul Aziz may may may doom ja. dem ja. mu denc ko am ca Omar ibnu Abdul Aziz. ñu tuddee ko maam moom Omar ibnu Xataab. jëfin jëfu yaayam jooju mm-hmm. jàpp Omar ibn Abdul Aziz moom mm-hmm. ba bi mu falo bat xaamisul xulafa mm-hmm. xam nga waaw ndeysaan diggante moom ñoom Omar waaw sore na sore na waaye mooy xaamisul xulafa sore na sore na <laughs> wallaay waaye lu tax na bu boole ko ca kuréelu mag wal balul tayibu yaxruju nabatuhu tu dañ mukk wallaay nga xam ne Seydina Omar bi mu déggee wax ji. waaw eh, dégg nga maam eh, maami Omar. waaw di wax loolu maamaati Omar. waaw daa jël doomam Aasim ne ko demal takk ko. jeex na <laughs> kooku moom. waaw bu na raw mukk boo ko takkee da am jabar. mu takk ko am ca Omar ibnu Abdul Aziz. allahu akbar. nañ bi faloo dafa maandu ba nga xam ne rab yi ci àll bi dañoo maandu woon. allahu akbar arab la. allahu akbar ne daa maandu kilifa gu maandu day tax nit ñi maandu. su daan su su këram. waaw. di waxtaan ak njaboot gi. waaw day fay làmpi état bi. taal sondeelam. <laughs> ndeysaan waaw. bu waxtaan mu jëm ci état bi. Mhm. mu taa mu fay sondeelam. dëgg taal làmp bi allahu akbar maandoo ngi noonu. ndeysaan nga xam ne auto administration bi <laughs> am naa sama benn xarit dama bañ a wax di ko beleese. waaw euh, bu bu bu demee këram Thiès day gaare auto auto administration bi. doxe di dawal xur dabbug auto goo xam ne. boo ko laajee mun la auto administration administration rek. Euh, jeex na loolu mooy maandu ndekete. waaw ñu nag AD bi mooy wër Sénégal AD bu yabi mbanaak ay bool ak lu ne ngay gis. keroog ba ñu woowee OFNAC. waaw <laughs> OFNAC gu njëkk ga. waaw mhm. <laughs> yal na ko yàlla yërëm OFNAC la woon. <laughs> keroog la fa la fa maam Fadilou Tall. waaw. ne ci li xisab Omar ibn Abdul Aziz boo xam ne. Mhm. mooy kera ba mu faloo. waaw dañ ko woo ne ko. Mhm. lu lay doy dépense. allahu akbar mu ne soxna si ñi ko dañ maa laaj lu may doy dépense mm-hmm. mun ne deux mille cinq cent doy na par jour mm-hmm. ñu laaj déclaré ne kon war na am deux mille cinq par jour mm-hmm. calculer ko jox ko jabar ji di di di di di di dépense wu deux di denc cinq cent ndeysaan allahu akbar moom Seydina Omar waaw Omar eh, ibn Abdul Aziz waaw léegi bi ñu ko doxalee ba mu diir jabar ji na ko nijaay damaa bëggoon ñu woo saaliwu Diaw mu defal ma ab armoire <laughs> <laughs> ndeysaan xam nga lu ko Amadou Abdoulaye si wax foo eh. jëlee xaalis <laughs> ana lakki hada ndeysaan laa <laughs> ilaha illallah waaw mu ne ko dépense bi ñu doon jox deux mille cinq laa doon teggi cinq cent di denc mm-hmm. nga lu mu ko wax mm. kon ñun li ñu doon jox dafa ëpp mm-hmm. daal di woo trésor ndeysaan ni jël ngeen def ko ca trésor ba allahu akbar ndekete ñun liñ ñu doon jox dafa ëpp seetal loolu rek oh xis boobu sunu gaa yëpp ko war na dégg ministre yi. dëgg la ak ñuy gaaw a sensé. yépp ko war a ci ligg boo xam ne man yéem na ma. waaw la ko wax de. ñëpp a ko war a dégg. laa ilaaha illallaah foo jëlee ana laki hada. foo jëlee lii. man léeg-léeg bu ñuy jàngat ay Omar ibn Abdul Aziz. Mhm. wala maamam Omar ibn Khattab. Mhm. ci ñoom ni ñu yore woon nguur. Mhm. ak ni ñu taxawee woon. yàlla xam na ne oustaz da ngay xam ne dëgg-dëgg daara ji mooñ na ay leader ba tàyyi xamul tax ñu bëgg a féete woo ñun di supporter. loolu ak nekk ay courtier politique ñu ñuy may ay bon essence rek ñu toog. gémmi dañoo dugg ba fi ne soo soo soo jógee les les barab lañ lay wax. Mhm. jabu liise la coow la ba doo bokk. waaw yéen am na benn journal bu ñu leen masoon def ba ngeen di. campagne waaw mag Imaam Mbaye ña. yaa Imaam Mbaye ña defal leen ndeysaan ca laa xamee <laughs> mooy yéen. mooy ñaam si kim <laughs> ñu ngi ñuy jabalise mhm. ba bu nu kenn yóbbu assemblée. ndeysaan waaw maanaam leen ëpp naa def ñam leen daara yi ñu mhm. lànk. waaw mu war toog. ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm. wallaay <laughs> wa shukran macha allah ak am solo wallaay oustaz am na solo lool jërëjëf kookoy Omar ibnu Abdul Aziz kooku mooy Omar ibnu Abdul Aziz waaw xaamisul xulafa xaamisul macha allah jàmbaar la woon de yi teg teg teg moom daan nañ ko teg oustaz malheureusement nit da koy dañu am ku toog di commenter waaw loolu amoon na ci moom te su boobaa du neex war nañ koo tegaat nag buñ ko tegee mhm. nan bàyyi rek arab bi dem mhm. Mhm. parce que film aar la te aar day wax waxi boppam laaj ko baabu jëm mi nekk fii. waaye soo tegee film bi nag bu ne daax la nga ne nee na dugg na. waaw xaraja mooy nee génn na. dëgg la de léegi. film tubaab bi de kenn du ko defal kenn. non non te gars yi dañ koy xam ba nga xam ne. gis nga yaay Adama Mbaye mi yaay. waaw dugg na école nga defe ne. <laughs> dugg yaakaaruma ko de yaakaaruma ko de mer ko. <laughs> waa ndula la ndax du ma dégg. waaye la dugg ah? toppal de waa ndula la ñoom te lu ñu woon yooyu. waaye film film ko nettali ba mu jeex la de c'est donc aar la day wax. wallaay temps yii mari maar di daw kay oustaz léeg-léeg nga ci kër jaareem fekk nit toog ne xeram di seetaan ay maire yoo xam ne. naan kii moo def sax ñu jépp. waaw dañ naan kii moo bon. ay lim ko wax te man ñii moom fu ñu déggee moo ko jaaxal. waaw <laughs> film <laughs> waaw la. moo tax moo tegal film arabe ci réew mi bàyyil rek Mbacke Inde ku ñu ko daan euh, de traduire. Mhm. Amadou Pam. Mhm. waaw day teg rek. da ngay teg rek bàyyi. bàyyi. Mhm. waaye fi nit ñi dañ xam film bi lan la wax. dëgg la dëgg la. kon xaamisul xulafa film boobu. xam naa bu Sud FM amee tel dañ ko teg buñ ko tegee bàyyi ko rek. dëgg la nit daal day daan falu. wàññi ay àqam. waaye du falu yokk. yokk yokk yokk ay àqam. kon adduna tukki daa mel ne Omar ibn Abdul Aziz loolu ci ay jikkoom la. radiyallahu taala anhu. xaamisul xulafa jërëjëf jërëjëf oustaz jërëjëf euh, maam Cheikh daanaka sax waxtu waa ngi jeex. waaye hmm. ñu indi laaj bi nga xam ne Mouhamadou sekk moom la laaj di nuyu oustaz Codé Sock. Hmm. Euh, Mouhamad nee na oustaz fan la yéene di duggee ci biir sangu farata kii sangu farata wala muy jàpp fan la yéene. Hmm. ca tàmbali ba. inda shuruu'i waaw. booy tàmbali rek fa la yéen ji duggee. léeg-léeg nag ñu andi ci ay détails yi su fekkee da ngay jàpp da ngay dem ba ca faraata ja. waaw léegi ñu wax loolu de. léegi su boobaa kon sunna ji. bu dee kuy jàpp buy sëlmu la ñu wax. bu dee kuy sangu ñu ne buy raxas kanamam. voilà léegi kon la la nga tàmbalee borom xamuñu la nga tàmbalee kon boole woo ci yëf kon ca ba ngay tàmbalee rek. yéen ji mën naa dugg. donte détails yaa ngi fële nag daan boo àgg ba ca xar kanam ba. wala ba ñoom seen yooyu. wallaahu taala alam wa shukran ci laajam bam sa macha allah jërëjëf Mouhamadou wala Ahmadou Seck Mouhamadou Ba nee na koo xam ne loxoom dafa paralysé maar day taali nee na kooku buy jàpp nan lay jàppee. waaw ah, waaw nam ko mën a rek. Mhm. su fekkee loxo bi daa paralysé te benn ba paralysé wut. Mhm. booba mën nay fekk si biir di ci def ndox. Mhm. waaw donc nam ko mën a rek ndax am na foo xam ne fi léeg-léeg nit toll fa benn loxo lay jàppee. waaw. su boobaa mu defe ko noonu rek incha allah ndax laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha macha allah yàlla tegul kenn lu mu àttun dëgg la wa shukran jërëjëf oustaz Ismaïla Diaye moom dafa indi rek ay nuyoo nee na di ñu wax bonne continuation ñoo ngi ko nuyu nuyu imam Ismaïla Ndiaye ma li nga xam ne moo nekk moom itam ci léegi de imam bu ñoom oustaz Ahmed Dame Ndiaye ngi koy nuyu baax imam Ismaïl euh, Omar kan moom itam ay nuyoo la indi ak ay siyaar ak ay ñaan Omar Kane kan balaay si ñu ngi lay delloo nuyoo la hmm. dem na suñu xel dem na ci kat tubaarkàlla. macha allah jërëjëf mbokk mi euh, indiwut aw turam mm, nee na euh, daal euh, s'il vous lu ngeen xam ci jullit bu jigéen boo xamante ne aw làmmiñam daal mm, baat bu kii la ci teg maanaam làmmiñ wa daa xaw a doy waar lool. Mm-hmm. saf sàpp rek nee na kooku lu ci lislaam wax. li ci lislaam wax mooy xanaa ne ko tuubalal sa làmmiñ wi. <laughs> mu tuubal ko. waaw. duxuloo fi silmi. kaafa kaafa. <laughs> lislaam booy dugg mm. da ngay feexe ba lépp dugg mm-hmm. bokk na ci làmmiñ wi bul nettali mm-hmm. bul wax lu dul dëgg mm-hmm. bul wax lu ay caaxaan ah te itam bul jëw te itam bul saaga saaga yu bari bu ñëw ci defaram làmmiñ wu ñaaw dëgg la hmm. sukkuraan jërëjëf oustaz ñu jeexal foofu ma jot li la nuyoo sa wëllëre wi di Serigne Abdou Mbacke boom bàyyi si xadi macha allah di envoyé message da koo def vocal moo tax xawma lu mu wax waaye nee daal mi ngi rafetlu émission bi dëgg la dëgg la ñoo ngi koy fay ñun tam di ko hmm. nuyu baax a baax a baax di ko ziar ak di ziar euh, waa kër ga jërëjëf loolu mooy xaaj bu njëkk bi ñu jaajëfal ñi ñu doon topp ñëpp. incha allah li ci tege mooy. li mooy bàyyi waa rédaction bi ñu ñëw ak ñun ci xibaar yi ci français ak ci wolof ñu ñëw ci ñaareelu xaaj bi te mooy wàllu auditeurs yi.